adjoint wu Ousmane Sonko la. Mhm. Madiambal la ko wax de. waa léegi tey jii nii Cheikh Diane Coulibaly frère Abdou Latif Coulibaly la Madiambal maa ngi koy xaar ci loolu mu lëndi. ok ah dinaa ko maa ngi ko ci xaar ci lëndi nañu wax moom lan mooy position frère Abdou Latif Coulibaly la. Mhm. c'est un magistrat rigoureux que je respecte. ok ses positions et tout mais posture Madiambal. ci mhm. Sabasy Faye maa ngi xaar posture bu fii parce que kii son frère est dans le gouvernement. ok. naka ngay comprendre naka ngay comprendre peut-être ñoo xam ne waroon nañ dem ci ci wàllum retraite di continuer di occuper yenn ci ay postes stratégiques certainement ñu ngi koy évoquer ci wàllum Sénat di ko évoquer également ci conseil constitutionnel loolu ban xayma lañ ci mën a def. programme xëyu mag ñi. <laughs> pas xëyu ndaw ñi loolu. xëyu mag ñi bii xëyu mag ñi la. ok xam naa xëy na daa am benn programme bu logé wu ci régime bi bu tudd programme xëyu mag ñi. Mhm. parce que nag Bamba. Mhm. munoo nekk tu as vu le euh, la la la récente. Euh, recensement de la de l'ANSD. oui. waaw qui dit que nombre de jeunes yi nekk Sénégal. Mhm. Euh, à plus de treize millions. treize millions oui. c' est une jeunesse valide. Mhm. c' une jeunesse apte. c' une jeunesse bi nga xamante ne def na li ko war ci njàng ak am xam-xam. Mhm. mais aussi am courage par rapport ak position yi mais jeunesse boobu noonu su dee à chaque fois ay retraité ñoom la ñuy teg ci kii boobu noonu station yooyu noonu. cette jeunesse là depuis euh, quand est-ce il le relais. ok parce que c'est un atout ah loolu ANSD wax atout mais c'est un handicap par rapport ak ñun les pratiques euh, gouvernementales yi ñu xam alors donc célébrons le programme xëyu mag ñi wala xëyu retraité yi. ok ah oui. est-ce qu'on ne pourra pas évoquer de subordination peut-être ñoom li ñu bañ a di ko def ñoom ils le feront de façon globale. non mais pour moi li tax li tax li tax. Euh, le président Wade moom moo naan c'est une fiction administrative la retraite li tax pour man jàpp naa ne euh, li tax bu ñu ne la ak boo accès tel âge il faut te retirer des affaires mhm. loolu am na am na am na logique ok oui déjà mag les facultés mentales ne son plus comme ça li mu nekkee woon à à trente cinq ans loolu mhm. c'est normal mhm. les facultés physiques ne sont pas à comme euh, comme elles à l'âge de trente ans mais aussi vulnérabilité par rapport ak yenn kii donc ce n'est pas pour rien que la retraite existe. Mhm. am na lu ko waral. alors donc loolu wax dëgg yàlla euh, mën na tey xel. ok ok maintenant euh, gis nañ décret boobu ginnaaw bi ko président génne euh, bëri na coow comme Ndiaga Sylla qui est expert électoral euh, dégg naa sax le ministre Ismaïla Madior Fall di tontu ne ko loolu casquette bu ñu ko solal la waaye kenn waxoon il est expert électoral maintenant moom nee dafay attaqué boobu le décret Ismaïla Madior Fall le ministre a dit que moo ko war a attaqué mais le concerné également moo ko war a attaqué tey cette tendance wala cette sentence ne a la a am nga qualité pour agir képp ku mu impliqué. est-ce que dafay est-ce que dafay impliqué ku mel ni Ndiaga Sylla aussi. dans cette décision waaw parce que boo ko analyser sur l'angle de mhm. Ousmane Sonko électeur effectivement c'est ce qui discute. la qualité d'électeur. Mhm. mais bu ñu fàtte ne Ousmane Sonko aussi et candidat ak une élection présidentielle. Mhm. dont Ndiaga Sylla est électeur. ok comprendre nga est-ce que dire Ousmane Sonko dañ ko delloo ci fichier bi loolu moom la Ousmane Sonko. impacté wul directement Ndiaga Sylla Ousmane Sonko dellu ci fichier boobu nag moom moo koy may mu mën a doon candidat donc c'est voilà là-bas c'est-à-dire conséquence bi foofu la Ndiaga Sylla impliqué en tant qu'électeur. ok te kii candidat la aussi ce n'est pas Ousmane Sonko en tant qu'électeur moom moo waral recours bi. ok kon ministre bi dafa dafa jaxas dafa def en tant que candidat non. ok euh, le ministre Ismaïla Madior Fall nekkatul ministre de la justice. na ko xamee noonu. Mm-hmm. sénégalais yaa ngi fële ca Nicaragua sonn fa lool gis naa Mamadou Yatassay déplacé wu ba foofu pour jàppale leen taxaw taxawaay bu rafet. Mm-hmm. Yatassay candidat à la présidentielle. Mm-hmm. Euh, le promoteur de Aquaterra gis naa ko mu dem ba foofu Nicaragua Ismaïla Madior Fall foofu la war a dem il est ministre. ministre de la. actuellement il est quoi ministre des affaires étrangères. oui des Sénégalais de l'extérieur. oui récemment le président a donné des instructions à ce que. waaw waaw li na bàyyi lii lii du domaine mhm. fi fi fi mu toll nii nekkul ci na lijjanti loolu. mais il est juste également. oui oui oui d'accord d'accord c'est-à-dire il est juste li ñuy waxtaanee mbirum mbirum. juste mais mais il a du pain sur la planche aussi. ok les Sénégalais vivent des situations catastrophiques à l'extérieur. Euh, yi nga xamante ni ñu ngi ko fay dund. Mhm. un peu partout dans le monde moom loolooy rôle am jamono ji. ok léegi parce que euh, voilà il est juriste d' on est d' là-dessus. Mm mais il a du pain sur la planche. qui s'en occupe. ok mais moom ci biir xam aussi ñun on n'arrive pas à discerner c' est le militant de la APR qui parle ou c' est le juriste également qui parle. c' est le militant. vous pensez. ah mais impérativement. Okay. parce que Ismaïla Madior Fall génneel nañu théorème bu théorie bu bees. Mhm. que ni li valider candidature nekkatul légalité. mais légitimité la. Mhm. da nga fàtte bi muy def meeting foofu ci Rufisque. mu ne bu ñu jaayee deux millions de cartes waa ji day bokk. Mhm. am déet. donc kon euh, moom il n'analyse plus la validité d'une candidature ci loi mais ci légitimité. ok léegi nañ ko fekk ci terrain boobu. dañ jox Ousmane Sonko fii seet. Mhm. ban légitimité la Ousmane ko am. pour bokk il peut euh, drainer plus de deux millions de parrains. bu boobaa Ismaïla Madior Fall na amaat le courage politique dem kii. dajale 3 millions de parrainage war na doon candidat parce que moom moo ne woon candidat wam ba président Macky Sall mhm. bu amee buñ jaayee 2 millions de cartes. Mhm. dafa war a doon candidat. ok ok mais tey naka ngay comprendre euh, le mutisme de l'opposition également ci le processus électoral euh, ci wàllum DG ci wàllum Sénat ak tout ce qui s'est passé euh, mutisme boobu également naka nga koy comprendre. non c'est-à-dire pour man l'opposition ku ci nekk. ci ñoom danoo. c'est mitigé en tout cas. non non pas mitigé. mais ils son focus sur leur candidature occultant ainsi l'inclusivité bi war a am ci élection yi mhm. ak la transparence bi war a mën a am ci élection yi parce que balaa nga naan naam ne fa balaa ñoo ñoom ñëpp nekk ci terrain bi di wut ay parrainage pour candidat nañu jéem a xool la transparence mhm. c'est pourquoi je suis d'accord sur cette nouvelle plateforme là FIT mhm. le front pour l'inclusivité et la transparence. oui. Oui, parce que loolu moom mooy euh, objectif bi. Mm-hmm. sans une élection inclusive on ne peut pas parler d'élection c'est une sélection sans transparence il ne peut pas y avoir élection hold-up électoral. mais compris et puis ñu ngi wane benn mutisme personne n'en parle à part. mais laisse-nous voir ce que ce que ce va donner d'abord. parce que je pense que a sans il y a il le PDS qui n'est pas là. Oh. Khalifa Sall n'est ana seen candidat. ah Karim Wade mu ngi doa. gis nga ko. mu ñëw wax maanaam est-ce que wax na Sénégalais yi. nee na dana ñëw si daal en tout cas. waaw loolu yàgg nañ ko wax depuis 2019. Ah. depuis 2019 ba léegi. Mhm. ñi ngi naan Karim dina ñëw kañ lay ñëw. Karim est-ce que posé na benn acte buy wane ne candidat la. Mhm. posé na moom intitut personnel je ne parle pas de benn acte buy confirmer ne moom candidat la. Mhm. gisuma ko. opposition bi yëpp dajaloo ci benn say. ne inclusivité transparence ku ci bokkul nañu xoolaat sa qualité d' opposition. ok est ce que nekk période bu ñuy waxee naan da nga ciy bokk ak doo ci bokk. ak mais justement est ce que war ñu boole seen effort ko si quelque part. mais mais mais boole seen effort boobu noonu am ñu si génn ne de alors. Mhm. quel est leur objectif ñoom fan lañ féetee parce que un acteur politique c' est une prise de position claire opposition ngeen wala pouvoir ngeen mu leer. opposition bi initiative bu ñu jël nga bañ pouvoir bi